yeah Mr Middle Finger is back fatal sa trouille vite fait normal album bi gis pe olib mooy teew ak succès gone yeeg paay tipse talent mooy longévité et tamarin ay maama tax ma bëri doomi jiitle c'est quoi le baay game yaa ko moom wan ma sa baay petit fils ki mën sa papa si rab woowee na ma baay xamoo sa xaar à part sa cuuraayu maama ak quelques fer yu brillé toxal seen label barsax def seen tombi sandrier bandi nga yee na ay rangoño fee sa casier am nga diplôme douleur def naa la chef de cabinet baaral bi munul tolloo maag yow comme xeexu goloog mag nam romb na violation comme dangin buy baaraam yoo baaraam zëb sa show di benw si samay vers yu pervers merveille yu rima géeju flow ak punch yi dem sévère at bi ñuy dugg ak bi ñuy romb maay soos soo saat ubbi jobu caas di jë yu mu toog xoosaat kicik kicik aaw Liguri bari bari amoo ci dendandoo lem bu ñu sukkar ku ko xas du yomb bàyyi danga man miin mokkal jigéen manidangar ak ndax lii du neen bëti gëdë ndax yow xol bi du ki ndax yow yendu di reetaan ndax yow namuma greffage ndax yow falew ma maquillage ndax yow jot nañu mariage mak yow baby kay ñaan si nga jënd guro pa bi takk sëy bi li ma bëgg ma ñu dem mairie ñu dem mairie ñu dem mairie